Mm-hmm. convocation bi ak jël yóbbu bi moom moo moom moo ànd mm-hmm. euh, peut-être revenir si euh, ay circonstances arrestation bu Pape Sané mm-hmm. yow mi nga xam ne démb guddee ngeen fële nga xam ne moo di section de recherche parce que da ngeen doon accompagner quand même quoi qu'on mhm. euh, kenn ci ñun muy muy muy Pape Sané mais également nekk proche collaborateur bu groupe bi ndax mhm. euh, foo tourné ci ay plateau donc ci seen donc lu ko lii dalee yoon la administration bi gunge ko rawatina yow mi nga xam ne yaay directeur euh, télé bi ak rajo bi lan la mën a jàpp ci jàppum Pape Sané nga Aïcha li ma bëggoon a njëkk wax mhm. mooy man c'est vrai Walfadjri lay liggéeyee c'est vrai maa ngi fiy bëgg a yàgg c'est vrai man maa jiite rajo bi ak télé bi mais su may xool liggéeykatu wal mm. journaliste Walfadjri mm. su may xool chroniqueur yi nga xam ne ñoo nekk ci faj Walfadjri di intervenir àlla la télé di intervenir àlla rajo mm-hmm. di intervenir euh, sur la chaîne YouTube bi nga xam ne ci lañ nekk nii mën ak yow tey mm-hmm. gis nga su may xool ñooñu muy Mame Birame wàcc di Pape Mokhtar Diallo Pape Sané Awa Diop Ndiaye Georges Nesta Diop euh, Pape Ndiaye ak xëy na ñeneen ñu ma fàtte su ma leen dee xool xool tous ces la gens là ñi nga xam ne ñoo nekk dans la rédaction de Walfadjri man damay am un immense respect pour ñoom yàlla xam na ne su ma fi liggéeyul woon tamit dinaa am respect pour ñoom damay am estime pour ñoom mais également dama leen di naw. Mm-hmm. Euh, bokk na ci sax xale yu jigéen yi nga xam ne ñooy intervenir notament ci réveil euh, ci petit déj ak yooyu dama su ma leen seetaan dama leen naw xam lu tax. mooy ay journalistes yi ngi nii yoo xam ne fii ci Sénégal la ñu juddoo fi lañ yaroo fi leen jànge mm-hmm. ñu ci bari ci ñoom muy yow di man di keneen mm-hmm. du ñu toog fenn naan école bii la ñu jaar mais ñu ci ëpp ci ñun dañu def école journalisme génn ñëw di mm-hmm. liggéey ci bërëb choisir benn groupe de presse boo xam ne ñun ñëpp bi ñu nekkee xale xëy na wala boog bi ñu nekkee di seetaan nekk téléspectateur auditeur rek dañu amoon fu ñu teg Walfadjri ni fii bis bu ñu fay liggéey yàlla dinañ dimbali ñu mën a exprimer suñu ay euh, nu ñu koy waxee sax suñu ay euh, euh, opinion librement. loolu Sidi Lamine Niass nekk ci kaw suuf di ci xeex pour que les gens yi nekk fii di exprimer wu librement Sidi Lamine Niass jóge fi nekkatu fii doomam Cheikh Niass nekk ci kaw groupe bi tous les jours muy xeex pour que les gens yi nga xam ne ñoo nekk fii di exprimer wu librement. et yàlla xam na ne il peut arriver parce que njiit njiit la il peut arriver que ñun ñu wax loo xam ne dina ko gêner wala xëy na mën na ko yàqal sax ses affaires. Mm. mais teewul respect bu mu am ci les gens yi fi nekk du ne kenn bul wax lii bul defee nii. ay Aïcha ces gens la muy Pape Sané mi ñu jàpp tey naaj ñëwaat léegi di Mame Biram mm-hmm. Pape Makhtar Diallo. Euh, Pape Assane mi ci ñëw bu yàggul dara ñoom Georges Nesta Awa Diop Ndiaye. Mm-hmm. da leer ne Euh, sànq rek am na benn imam bu may waxtaanal bu dëkk Touba bu may wax yu mel noonu ñoom tous les jours tous les jours que Dieu fait depuis en tout cas mars deux mille vingt et ba tey fi may waxee yow nii tous les jours heure bu ñu yeewoo ci pression la ñuy dund. c'est-à-dire que heure bu ñu ñibbee seen kër en liberté journée bu bu ñu rëcc la. li naan jigéen du raw day rëcc cest à heure bu ñu ñibbee les gens la ngay gis ni ñuy sourire di reetaan di ñëw di liggéey dem di ñëw. heure bu ñu ñibbee seen kër ba tëdd julli xaw ma wala def la ñuy def tëdd seen lal hmm. journée boobu journée bu ñu rëcc la di xaar journée ëllëg bi xamuñu lu ciy xew et pourtant ces gens là ils continuent à faire le travail comme si de rien n'était avec courage ak abnégation ak responsabilité ay nit a ngi nii yoo xam ne man wax naa ko te incha allahu rabbi su ma yàlla may wéggeeg doole ji lu may lu may bind la ci livre ñëpp xam ko ñun bu ñu doon raconter li subir ci ay menaces hmm. di ko subir ci ay saaga yu ñuy yónnee hmm. di ko subir ci ay suñu yëf yu ñu yàqal ñu koy ñu koy demaale en se disant que ni toute façon notre métier moo ko laaj mais day jeex Sénégal moo ëpp loolu Sénégal moo ñu sut hmm. ñooñu man dama am un immense respect pour ñoom parce que euh, xëy na man mm, dama ci gën a visible parce que man maa man maa jiite hmm. suñuy wax man la ñuy wax suñuy woo man la ñuy woo mais ces gens la mais ils sont merveilleux démb dañu dugg eh, gendarmerie man ak eh, eh, maam Biram Waj defe naa Abdallah moo ñu doon tooñ laa mu ne maam Biram yow Moustapha waru leen waru leen da ngeen war a waru leen woon a ñëw wala da ngeen waroon nekk ci ginnaaw parce que yéen dañ leen xàmmee quoi <laughs> mais mais pour te dire que ni c'est avec cette pression là que l'on vit tous les jours te li ci metti mooy da ngay dund ci benn réew boo xam ne en même temps tu as tes confrères mm-hmm. yoo xam ne yéen a jàngandoo ñenn ñi bu avez fait les mêmes rédactions ñuy continuer di def le même travail que tu fais ñoom dañoo choisir di ko defee neneen yow nga choisir di ko defee neneen ñoom. amuñu ils sont à l'aise am fu ñu bëgg dem dem fu ñu bëgg a voyager voyager ku ñu bëgg waxal waxal alors que ñun euh, il arrive même que ñenn ñi di la ñenn ñi di la moytu lépp yomb leen très bien maintenant mhm. le cas de euh, Pape euh, Sané may wax ni moom it dafa bokk ci nit ñi nga xam dama am respect ñoom parce que Umar mi ma koy wax léegi mm. naan ma Pape xamoon na dina ko jàpp que moom ci moom il le disait te li ci xaw a euh, li nga xam ne moo ci doy mooy man démb bi ma yeewoo defe naa ne su ma juumul daal midi mooy jot wala quelque chose comme ça mm. dama jot un appel euh, ci kenn suñu ay confrères sama mag la bokkul nekkul sax Walfadjri mu ne ma Moustapha est-ce que euh, am nga contact gu mën nga ma jox contact gu Pape Sané ma ne ko qu'est-ce qui se passe mu ne ma dafa am benn journaliste jigéen la sax la ma wax boo xam ne gendarme moo ko woo. Mm-hmm. ne ko dafa bëgg mu jox ko contact gu Pape Sané et puis mu wax ko aussi ban heure la Pape Sané nekk Walfadjri quoi léegi sama grand boobu mu ne ma man j'ai l'impression que gars yi dañuy dañuy wër Pape Sané mm-hmm. wala dañ ko bëgg a jàpp mais soo ko mënee woo nga wax ko après bon euh, mu xam quoi au moins il se prépare wala voilà ma ne ko d'accord y a pas de souci euh, comme j'avais une réunion à Walfadjri je suis venu très tôt mm-hmm. plus tôt que d'habitude bi ma ñëwee ma dugg réunion Aïcha bi ma toogee ba ba 16 heures jot euh, dama woo Issa ne ko demal nga dugg rajo nga xoolal ma keppaar gi ñan ñoo fa nekk Issa xoolal ma ne ma Georges mi ngi fa ak Awa Diop Ndiaye ak Pape Sané ma ne d'accord mën naa ne sama réunion parce que dama waroon def keppaar gi ma ne kon jarul may dem mën naa ne sama réunion mhm. et puis ça me ñu ne ma Pape Sané mi ngi fi donc ça veut dire ni kenn jàpp ko mhm. bi ma toogee ba réunion ba pare ba ñu euh, génn ba ma ñëw sama bureau toog laa gis appelu Pape mhm. ma woo ko Euh, man comme je l'appelle toujours grand pape ma ne ko grand pape j'ai vu que yaa ngi may woo treize euh, sànq ba léegi quest mu ne ma maa ngi ci auto gendarmerie jëm section de recherche ma ne ko quoi mu ne ma wéy euh, dañ ma convoqué ma ne ko pourquoi mu ne ma non en fait xam moom xamul lan la en tout cas ñu ngi koy yóbbu te effectivement ñi nekk buntu Walfadjri mën nañ confirmer que ni fii lañ ko joxee convocation jël ko yóbbu alors bi loolu amee euh, man li may def très souvent te loolu Pape mii naaj ñëw léegi euh, bokk na ci lu ma ko daan defloo man ak moom suñ daan dégg kenn suñu ay confrères mu nekk Walf wala mu nekk feneen dañ ko woo wala dañ koy inquiété ci dara ñu dañuy jël suñu téléphone ku ñu xam ñu woo la. Mm. pour xam qu'est-ce qui se passe nangam ak nangam affaire yooyu. alors bi 17 heures euh, passé donc vers 18 heures ñun lañ fi jógee ne comme mi ngi section de recherche nañu dem. Cheikh Niass moo njëkk a dem ak ànd ak Abdallah ak monsieur Faye l'administration quoi. Mm-hmm. man ma topp ci ak euh, Seyni Diop ak euh, Mame Birame Wàcc ay mhm. Aïcha bi ñu demee section de recherche euh, fekk Pape Sané mu toog gendarme yi toog et loolu man Pape Alé Niang waxoon na ma ko et je pense que am na solo ñu koy ñu koy wax moo di ne mhm. ni ñuy traité nit ñi buñ demee par exemple commissariat central dafa wuute trop ak ni ñu leen buñ demee gendarmerie section de recherche notamment mhm. man ma demee section de recherche j'ai trouvé un Pape Sané très serein ñu teg ko mu toog fu baax bon kenn amul kenn bëggul toog foofu mais en tout cas amul benn inquiétude sur quoi que ce soit ñun aussi les gendarmes yu fa nekkoon <laughs> man xawma c'est peut-être c'est la euh, li mu nekk euh, gendarmerie li mu nekk si c'est xawma li nekk ay militaires la ou pa mais c'est des gens ay jeunes ñoo xam ne boo ñëwee il très bien même le chef de la section de recherche explique la exactement explique la pourquoi ils l'ont appelé voilà bi ñu toogee ba góoru euh, je crois vingt heures vingt une heures lañ ko auditionné. Mhm. ñëw na fa dix neuf heures toog na fa presque deux heures de temps yoo xam ne nga toog di xoole rek ñun aussi ñu toog ci ngelaw li di xoole tu n'as rien à euh, xamoo lan la quoi. bi ñu ko commencé auditionné l' avocat de Walfadjri ma nga fa woon Cheikh Niass ci boppam il a participé à l' mhm. bon man après d' ailleurs c' pour man de les remercier muy maître Khoureychi Ba ak maître Ousseynou Fall nga xam ne ñoom dañuy ñëw te loolu naa ci ñëwaat sànq lan moo tax la presse sénégalaise bu ñu déggee yu mel noonu du ñu réagir spontanément mm-hmm. ñoom avocats yooyu dañu c'est des avocats qui défendent les droits de l'homme mm-hmm. ak ku mënti doon man mi bi ñu ma woowee ñoom ñoo ñëwoon mm-hmm. ils sont venus spontanément ñëw dugg laajte qu'est-ce qui se ñu expliquer leen ñu ñu kii quoi après bi ñu ko auditionné jusqu'à ay vingt deux heures passées lañ nañu euh, léegi dañ koy placer en garde à vue comme ça mooy dañ koy téye fi lay fanaan naturellement ñun li ñu bëgg a xam mooy que ce qui se passe est-ce que dafa am loo xam ne daf koo wax ci penco wala mu wax ko ci réveil wala mu wax ko ci laaj bi muy def. man pour man maa ngi doon xalaat maa ngi doon wax sax Assane Gueye naan ko est-ce que yéen ñi nga xam ne vous suivez tout le temps euh, qu'est-ce que Pape a dit semaine bi parce que man j'ai fait Pencco avec lui euh, gisuma lu mu fa wax. voilà euh, exactement man su ma yeewoo suba léegi. Mm. depuis quelque temps c'est ce que je fais damay yeewu toog seetaan réveil jusqu'à ce que may yóbbu xale ñu jàngi. Mm-hmm. mais gisuma mu wax loo xam ne mën nañ ko ci topp. Mm. après ci la ñu ñëw dafa am benn poste d'ailleurs poste mi ngi sama téléphone ma jàkkaarloo nii benn poste boo xam ne poste mooy texte boo bind. def ko ci euh, Facebook euh, texte bi Aïcha bu mu ko xoolaatee matul matul cent mots mhm. boo ko doon boo doon wàññi mooy Pape bind matul cent texte bu ndaw la boo xam ne Pape mi ngi ko bindoon en deux mille vingt et un mhm. te lu mu ci jublu woon mooy rendre hommage général Jean-Baptiste Tine mi nga xam ne moo jiite woon gendarmerie et que après les événements de mars deux mille vingt et ci mhm. lañ ko jëlee gendarmerie Pape ne ko sénégalais yi duñ la fàtte loolu la wax Jean euh, Jean Baptistine daf ko bind ne ko Sénégal duñ la fàtte mais ci biir texte bi mu ne moom mu ngi naqarlu moom Pape Sané condition yi nga xam ne moom la Jean Baptistine noonu lañ ko jëlee ci bopp gendarmerie alors qu'il était à trois mois de la retraite yu mel noonu rek yu mel noonu tàggoo ko ay exactement léegi le le poste en question mm-hmm. euh, Pape daf ko reprendre ci page Facebook am il y a normalement sept jours tey donc man quand j'ai vu ça dama ne mais poste même fekkoon ne lu bees la mu bind ko ba mu am six jour ci hmm. page am ñu koy soog a woo mais c'est parce que bindu fi bindul dara lu lu garaaw franchement il faut ñi may seetaan ak di ma déglu nañu nañu liir le post vraiment y a vraiment rien de de de méchant vraiment rien de mession mais dama yaakaar ne li tax euh, xëy na alerte wala li tax autorité yu jóg mooy post boobu dafa am site internet yii. Mm-hmm. yi ñu tuddee ay sites yi ñu tuddee euh, ñoom dafa am ñoo ci xam dañ ko reprendre. am nañ koo xam ne daf ko reprendre bind xaw ma lan euh, Pape Pape Pape Sané se lâche c'est c'est ngandal affaire bi quoi c'est-à-dire que comme si Pape Sané dafa def benn interview mm. ak benn journal wala benn site internet di ci wax ay wax ju bëri alors que c'est un poste de cent mots matul cent mots peut-être que que je vais devoir recompter mais en tout cas ce dont je suis le poste matul cent mots c'est c'est c'est tout mais le fait que ñu reprendre ko comme sa dugalaat ko ci ci site internet yi xëy na moo les les sénégalais ne vous oublieront jamais trois points de suspension limogé un officier général euh, de surcroît un haut commandant de la gendarmerie nationale sans mm-hmm. même qu'il ait eu l'occasion de faire ses adieux à ses hommes mm-hmm. et la pire des humiliations mm-hmm. le général Jean-Baptiste